ma ngoog euh, Walf Quotidien xëy di ñu li fi euh, xeetu ñoll gi ñu duppee cocaïne bari na lool ci Sénégal say su ne waa douane teg ci lim bu takku yéen ak cabinet loole nag euh, jur jaaxle ci askan wi commissaire Cheikhna Keita jiite woon fi orkutis ci jamono xam ne ci jamono ji matuwaay yu mat sëkk la nguur gi war a jël ngir mun ko fee jëlee bile xeetu ñoll bokk na ci Sénégal mi nga xamante ne daanaka mooy sële yoonu jaaykatu drogue yi lu ko waral mooy dal gi Sénégal am ba tax nañu bari Sénégal lañu tàmm war fee mun a jaar ngir mun a jaay ji wala boog mun fee jaay seen drogue Mame Mactar Gueye njiital ONG Jamra jàpp ne la koy faj mooy fexe ba nu jëmmal loi gi ñu fi eh, jotoon na jukki ngir fexe ba képp koo xamante ne eh, jàpp nañ la ngay jaay drogue daan ya mun a tar lool ci sa ndodd mu ngi ci yéen kii di Walf eh, Quotidien. ay ci ñu ñëw ci réew mi quotidien. réew mi mu ngi desandek réewum Sénégal ak ñoll gi fi ne gañ cocaïne lañ koy wuyoo lañ koy dupe yenn kii bi ñu xamlek drogue googee nga xamante ne drogue dure la yéen kii bi ne teg nañ ko gannaaw ca euh, kër ayib euh, ci ay marchandise lañ ko jotoon a dugal waaye nag douane def na kéemtalaay kattanam ba liñatu mbir ya ba mun koo teg loxo bokk na ci boobu ba léegi ñu ngi def jéego euh, ngir mun a gàttandu jaaykatu dorog yi mun a safara wala boog fànq seeni mbëbët mu ngi ci yéen kaabi réew mi quotidien ñool gi de gone gu ko ci muytul hmm. ñool li ñool li rek ngay def yéeme na loolu de le quotidien le quotidien delluwaat ca Kaolack foofee jot nañ fa teg itamit lim takku ci cocaïne lu jege fanweeri kilogramme niki samedi gi ñu weesu ca kër Ayib douane moom jot naa tegaat euh, loxo cocaïne goge fanweer ak euh, ñett ci kilogramme euh, ca gànjaay niki démb mu ngi ci yéen a kaa bi di le quotidien. l'info yéen a kaay l'info mu ngi ñuy dégtal tukkeegum ci ndajeb waxtaan gu ñu jëmaloon ci wàllu wàllub yoon googu lépp dialogue national tey jii lañu fas yéene jukki nag lañ ca jota a tënkee ci taabal gi jébal ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye waaye nag am na lu ca ruseegum bokk na ci conseil supérieur de la magistrature xamee ne njiit réew mi waratut caa bokk UMS di kuréel gi bot magistrat magistrat yi ne déet euh, sàkku nañu ci njiit réew mi mu wéy di euh, bokk ci googule conseil supérieur de la magistrature ndax bokkam ci googule kuréel ngeneen la ci réew mi mu ngi ci yéene kaay bi di l'info tribune yéene kaay wàllub yoon ak euh, jafe-jafe gi nga xamante moom la a gay homme d'affaires bi am ci jamono ji fanaana na gu démb bu njëkk ca kaso lañ koy toppee coowal suuf gu toll ci benn milliard ak yu toftal bokk na ci ba jaxate ak imam ndaw ñoom ñaar itamit yoon daan na leen ñetti weeru kaso ak alamaan gu toll ci ñaar fukki eh, junni yi ñu war a fay yéen kaa bi moo ñu ko yëggee ci eh, xëtam bu njëkk moom eh, turbine bés bi le jour bés bi jour ne ci bés yi ñu jëm daanaka du leen fekk seen kër waxatuma tabaski ca rëbës la ñu fas yéene tabaske moom imam Ndaw ak i tamit ki nga xamante mooy ba jaxate ñetti weeru kaso lañ leen daan Dora Gaye moom ma nga mandat de dépôt yéen kaa bi di bés bi le jour moo ñu ko yëggee le mandat. le mu ngi ñuy dégtal euh, blocage euh, jafe-jafe compte ya mu am euh, ci groupe avenir communication ma jàmbal Diagne mënatul jot jot ko par ci yooyu le compte ndax tëj nañ ko ràpp nguur gee jël dogal gi ni mel ngir fisc gañu teg ci ndoddam mu toll ci juróom-ñeent fukki million million ak benn yenn kaabi le mandat moo ñu ko yëggee ëllëgu parti socialiste ci ban loxo la war a tàbbi ngir weel ndonop Léopold Sédar Senghor mun naa doon ci loxoy xalifa Sall ci loxoy itamit Serigne Mbaye Thiam wala boog ci loxoy Barthélémy Diaz ba ci loxoy Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi ci yéen a yi di la mandat. yor yor yéen a kaay. xëy yoru nag ca Dakar naaf ak jafe-jafe liggéeykat ya daanaka ñu ngi ci guddi gu bër setagul lim takku ci ñoom xamatuñu ëllëgu Dakar naaf googee ndax la ko tënk bokk na ci tamit ay patron portugais ña ngay ceru ci seen dodd yor yor bi moo ñu ko yëggee. source a bëgg a dem taxuta mun dem lim bu takku ci ay ujaaj jotuñu mun Makka yéen kaabi di sursa moo ñu ko yëggee ba tax na Air Sénégal ga ñu doon yaakaar ak eh, jafe-jafe yam leen jural ba tax na marché googee nga xamante ne Air Sénégal moo ci waroon ak tey jii Flynas eh, bu Arabie Saoudi moo mujjee gàddu genn wàllu marché googule moo tàmbalee yóbbu ujaaj yi eh, ca Makka bu ñu sukkandikoo ci source a Sud Quotidien Sud Quotidien Mouhamadou bi tey mu ngi ñu dektal gorub garab yi ci àll yi bokk na ci dogal yi fi ngur gi nguurub Macky Sall jëloon nguurug Bassirou Diomaye fay ne bëgg nañu euh, groupe garab yi mun a dakk ci ni mu gën a gaawee ndax loole bokkul ci luy naatal alam gi di environnement bu Sénégal. Le Soleil yéen kaay mu ngi ñuy euh, agricole yaa ngi fàttaliku naka la ñuy joyantiwaatee yooyu la coopérative agricole doon lu soxal nguur gi ma ngi cay waxtaan docteur Alpha Bane daañ ci jël matuwaay ba fexe ba mbéy meek euh, gerte geek yeneen ak yeneen mun a jàppandi ci réew mi. L'évidence moom la ñu dénkoon wàllu horticulture docteur Macoumba Diouf jël jële nañ ko fa ko ko fa wutu di Cheikh Ahmed Basirou Sané jokkalante lenge dox na seen diggante demb nag waa horticulture jot nañoo jaajëfal docteur Macoumba Diouf gannaaw jéego ya mu ne def na ko ci mbéy mi mu ngi ci yéene kaa bi di l'évidence jéego yu mag a mag moom la def moom Aliou Cissé lu toll ci euh, téeméeri match la jota a ak suñu gaynde yi euh, guddeet la ci ñu fi jot jaar ci équipe euh, nationale Aliou Cissé turam dugaat na ci taarixu football gannaaw bu ñu jëlalee Coupe d'Afrique des Nations ca bi la yoon euh, fas yéene ànd ak euh, gaynde yi yéene mooy dem ca mondial 2026 euh, waaye nag am na ci koo xamante ne daanaka match yañ ca war a amal ngir waajal googule mondial du ca football di Sadio Mané mi ñib seek gaañu gaañu ba tax na match Sénégal RDC kenn du ko fa seen rawatina Sénégal Mauritanie forfait nañ ko ci yooyu le ñaari match mu ngi ci yéene kaa bi di stade xanaa laaj daal di samp ndax Mouhamadou Biteye munta wutu Sadio Mané lu mun a nekk la de waaye li ma ci jaaxal moom xam-xam bëri na ci bopp bi kàttan bi kay moo ci sama problème. ah ndax mag dikk na. waaw ah, sidit ba newatu fa de. waaw loolu de waaye bopp bi moom wax dëgg yàlla la may xalaat de bu ma ko mënoon def ci tànk yi. kon Sénégal am coupe bi monde. te maître Abdoulaye Wade yaa na. lool yaa na lool yaa na lool. bàyyi rek ma féetewoo micro bi mooy gën mooy gën a yomb ci man. mooy suñu ileer. <laughs> kon jeex na nañu bay bay bi. <laughs>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 wala sax nit ñiy làkke kàllaamay arab institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gën a neex na mooy fépp foo dem ci états ak ci àdduna bi mën nga bokk ci yooyu les lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen léegi inscrire ci icfaonline.com wala soo soxla soxlawee ay information yu gën a yaatu mën ngeen leen jot ci 240